mi nga xam ne néew ni daaw ci turam lan fi teewe woon sunu boroom dogal ab liggéeyam mat mu wàcc teewaay bu jëkk ba nag ci turu sëriñ saaliwu la woon jombulit ci càkkuteefu sëriñ muntaxa mii la woon ndax moom laa fi wuutu muy ñaan sunu boroom dolli ko yërmande moom seex siidi muxtaar ak njégal ak ngërëm kilifa la woon gu ràññiku ci bëgg lu baax fonk diine bennoog jullit yi ñoroon ko lool mu defal yoon wi ak diine ji liggéey yu am solo yu rëy yoo xam ne ñun ñëpp suñuy bët tege na ci kon yàlla nañ ko yàlla fayal payog àddina ak àllaaxira te payog àddina gi mu taxawu ci njabootam gépp ci anam yépp yàlla mën na ko sañ na ko innahu huwa arrahman man allama alquran wa xalaqa al wa allamahu albayaan rakkam ji wuutu ko fi te yépp dal ci moom ngir meloom ak doxalinam démb tey soog a ñëw yàlla na ko yàlla sàmmu dëgëral ko wéeral ko guddal fanam taxawu ko fay ko lam daa taxaw ay baayam ak i magam ba ci magam ji mujj bam mën matal ay mébétam te mottali mébéti kilifa kilifaam yooyee man nag maa ngi koy dàkkantele bari jàmm sëriñ taxa bari jàmm caree jaag ubbiku gaag yéene jaamu ñépp gi feeñ daay man ci ay waxam ak i jëfam bëgg-bëggam boobu di jàmm yàlla na ko yàlla dolli ñépp ci xalifaam إنه نعم المولى ونعم النصير على كل شيء قدير وبالإجابة جدير gannaaw loolu maa ngi leen di dénk ci turam tey dugal sa bopp ci seen biir bokk ak yéen dénkaane ndax taaliba yépp la ko dénk te moo di nu gën fonk julli mii nga xam ne moonu dajale fii tey ndax sëriñ bu mag bi dafa waxoon ne dee julli te koy jubal ndax bu ëllëgee lu ngeen dëngaloon julli juba jugu jub ga jubal ko tey wattandiku julli di ko dëngal ba bu ëllëgee lu ngeen jubaloon julli gu dëng ga di ko dëngal aw kama qaal radiyallahu an te loolu day firi alquran di firi hadis bu dee ci alquran fawaylun lil musallina ba ca wa yam na wala maahuna dëggal na ko bu dee ci hadiis yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxoon na ne li ñuy jëkk a seet ci jëfi jaam bi yowmal xiyaam mooy julli bu jagee lu ne mën naa jag bu jegul dara du mën a jag jubal julli nag mooy def ko niñ ko santaane ci wàllu melo ak bërëb ak waxtu ci loolu maa ngi fàttali li sëriñ bi waxoon ne waalam bi anna afdala taati salaatuna fi awwalil awqaati sëñ Tuubaa topp yàlla yépp li ci gën mooy julli ci njëlbeenu ko waxtu sëriñ bi jaanam wàcc na wallaahi jëf na wax na bind na lu des ci ñun la li sëñ Moussa Ka waxoon rek bu la fàddoo nga sax ci lim santaane ay seytaaneem ak i tereem lépp a ngi ci lim mbind ak njabootam ak ñim yaroon newoon ci te di fi jug insha allahu ila qiyaami saaha ndax lépp day dellu ci santaane yàlla ak i tereem yim jaarale ci sunu yonent bu tedd bi alayhi wa alihi salaam kon fu ñuy dajeeti te waxtu julli man nu faa fekk nan koy bàyyi xel di ko sóoraale ca waajtaay ya ngir su jotee rek nu mën a bàyyi lépp lu nu nekkoon ni ko sëriñ bi daa defe te diggale nu ko nii lii bokk na ci liñ war a jële ci fàttaliku julli géej gi naka noonu fonk jàkka di fa joxe farata yi bane bañ a yam ci man kat demuma jàkka waaye waxtu duma raw bar na ñuy wax loolu naka noonu di teewlu tey rafetal njàng mi maanaam tajwiid sunu kem kattan yàlla tegul kenn lu mënut waaye war nañoo def sunu kem kattan te bañ a daw ku wax ne dañuy toppandoo naar yi déedéet tajwiid du toppandoo toppandoo yonente bi bi bi bi bi wàcc ci naar yi la waaye nekkul toppandoo naar yi roy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la noonu la ko daal ci la sax bu daa si yonente bi bu daa jàng dadaa tajwid nuy rafetalit waajtaay wi ci laab gi ak col mi lii leen tënkoon tey ci bis bi tey balu àq ñépp àqi démb ak ju tey juma yëg ak juma yëgul te fas yéene matal ju ëllëg bu nu fi yàlla bàyyee incha allah gàddu àq lu néew néew mat la xeeb teggil te bañ a gàddu moo gën lu mën a gàllankoor ab jaam ci dundam la dundub àddina ak walaxira nag ñoo ci yem bu na dana ci gàllankoore nan koy moytu te koy baalante ndax nuy mucc tey ami xéewal yuy sax yuy sax ak ñun tey ak ëllëg réew mi it di jëm kanam yàlla na yàlla tappe xol yi li alaaji Abdou Aziz daa faral di wax di ko ñaan rahimahullahu wa rahima jamia saahilin wa rahima jamia saalihin maa ngi leen di sant di leen ñaanal jàmmi àddina ak alaaxira di nuyu mbooleem ñi fi teew ci kilifay diine ak kilifay aada te Cheikh Basir tudd leen fi léegi